boobu dafa am risque bu ci am cest dire dafa xaw a nekk benn patate chaude en tout cas parce que ci ñaari anglais boo ko ci jëlee mën na poser problème. c'est-à-dire la sortie du président parce que ni président de la république la ñu fal. absolument ñee seen njàng moo leen fa yóbbu. la sortie du président ci conseil supérieur de la magistrature. boobaa tamit président dootul grâce moom xanaa dootu ko signé. non non pouvoir de grâce moom. pouvoir de continuer. Ah, c'est la constitution qui du du du président de la République c'est son pouvoir discrétionnaire te même grâce yi sax même grâce aussi après si vous voulez on peut mën nañ ci wax parce que grâce ni ni ni ko président de la République di signé. waaw ñu ñëw foofu ba pare bala dire tey jii. Mhm. damay xaw a rejoindre en euh, euh, Adama. tey moom yéen d'accord naa ah. d'accord naa ci ci ci ci sortie président de la République. Mhm. mais bu mu nekk lenn loo xamante nii. magistrature bi day dem day day day am une autonomie absolue mhm. parce que magistrature bu amee autonomie absolue gouvernement des juges mooy am ah gouvernement des juges mooy juge bu booba ils auront la possibilité ñuy buur ñuy bu mu ñuy def lu leen neex te aussi dafa am beneen inconvénient bu ci am dafa am beneen inconvénient bu ci am si la justice si si mu am benn benn benn mu am ay contradiction entre le pouvoir exécutif et le judiciaire et le judiciaire loolu mën na nekk benn moyen boo xamante ne ni mhm. mën na noo bloqué mën na noo bloqué le fonctionnement des institutions. c'est ça le risque moo tax le ministre de la justice. Ah. le ministre de la justice. en tout cas Sénégal présentement ministre de la justice bi mu ministre de la justice la boo xamante ni mën nañoo am espoir ci moom parce que lorsqu'il était procureur de la République. il a toujours été un procureur de la République pas un procureur. du du de l'État il a même rappelé donc procureur la boo xamante ne amul benn président de la république boo xamante ni ni mas nga kaa jéem a jox ay instruction di ko jaarloo foo xam ne moom buggu fa jaar donc à partir du moment où moom da def nañ ko ministre de la justice donc on peut avoir bon espoir que moom mën na rester dans dans le conseil supérieur de la magistrature d'autant après ñu légiférer d'autant plus que moom il connaît déjà il a voix au chapitre il connaît déjà moom les les les les nga xam ne am na dans dans l'institution judiciaire donc Ousmane Diagne Ousmane Diagne euh, mën na mën na continuer en tout au niveau du conseil supérieur de la magistrature maintenant par rapport au président de la république. Mais je crois un, que c'est un membre c'est un membre hein? la famille judiciaire. non moom moo tax la membre de la famille judiciaire. il connaît là où le bas blesse. xam nga xam nga oui mais cette famille là.